leen di nuyu di leen di jaar jëfal suñu mbokk internet bi ñuy topp ci chaîne bi ñu naan que 221 people ni ñu ko fas yéenee di def at ñëpp la tey damaa ñëw fii seet si kuñ naan Serigne Babacar Diop fu si leen koo dalal ñu waxtaanee ci lépp lu bokk ci wàllum ñaan ak wàllum paj mais ñu faa ñëw dina am benn ponk bu ma leen indil ñu waxtaanee ko Serigne Babacar ma bàyyi la nga nuyu ko mbokk internet bi 221 people. aouzu billahi sami alim mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. allahumma salli ala muhammadin nabil ummi wala ali wa sawa salim rabbi saxli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli di leen fay yéen waa 221 people di leen wax bisimilah. jërëjëf sëñ Babacar comme ni ma ko waxee sànq ci sama njëlbeen nuyoo daam foo xam ne fa laa bëgg ñu njëkk a waxtaane tuuti rek ci résumé mu di loo xam ne nit ki da war a xam lépp lu bokk ci yow mu di wàllum diine comme que dañuy woote da wax ñu ne pour ça yëpp musulman lañ euh, te am ma seet loo xam ne dañ koo xaw a cofantal lii di xam sa diine ak say farata ñu ñëw fi nga am loo ci xaw a jàngalee tuuti. Mm-hmm. waaw ciy wax daal mooy dafa am loo xamante ne yenn sens da jàngale muy euh, nit ki dafa war xam yàlla balaa moo balaa mu koo jaamu ndax taarifoo nii kay fa an tax bu doon fii lam taarifoo nii fa kay fa tax bu doon nit ki dafa war a xam boromam jiitu mooy mu koy jaamu ndax. nit bu xamul boroomam rek dina ko bokkaale ak li mu bind mhm. ndax yàlla rek moo fi nekk ak li mu bind yàlla rek moo fi nekk ak li mu ak jëfam yàlla rek moo fi nekk ak dogalam bi nga dafa am loo xam ne uluhiyya la muy kan mooy yàlla yàlla buur la bu màgg boo xam ne moo féete kaw lépp lu mu bind te lépp itam lu am rek moom moo ko dogal ba mu bindee ba noppi itam daal di jël nit ki jox ko loolu ñu amaanatu jox ko loolu ñu wax téere nga xam ne ay yàcc na ay yonent jox leen ay téere wàcce na zabuur wàcce na injil wàcce na tawret wàcce na alquran léegi nga xam ne jullit bi bi ko yàlla bindee ba noppi daal ko jox responsabilité bu rëy boobu eh, dafa ko togg jëf mu war ci ay waajuram bi mu juddoo rek euh, ba xàmmee ñu war a li ñu war a njëkk def ci moom mooy ñu xamal ko diineem nga xam ne lu gën a bari lii am nga xam ne nit ki day am ñetti at rek bu dee fii ci Sénégal dañ lay yóbbu ngay def garderie wala jardin juróomi at wala juróom benn at bu bëree bu bëri ñu dugal école nga nekk di topp li nga xam ne mooy noo xamee sa àdduna wala nooy jagalee sa àdduna muy jàng école boo xëyee suba teel sept heures nga génn sa kër balaa ngaa ñëwaat euh, dix-huit ba keroog ngay nekk mag ci loolu ngay nekk bu ko defee lool ngay jël moom mooy doon farat ci yow te yàlla daf ne ba maa xalatul jinne wal ins illaa liya'buduun sàkku mu nit ak jinne lu dul ngir ñu jaam ma bu ko defee nag jaamu gi moom dafa aju ñu xam door a jëf ndax xam-xam mooy jiitu jëf te ci biir xam bi nit lan la war a njëkk a xam lan war a njëkk xam war na xam nan maanaam nan lay gëmee yàlla ndax loolu yéen jàngal na ko nit nan la war a gëmee yàlla nit ki war a gëm yàlla gëm yonent yépp lu ci wedd kenn gëm malayka gëm dogal bu neex ak bu naqare gëm bés gëm de gëm de gëm seraat gëm kawsara yooyu yëpp mu gëm ko comme ni mu ko war a gëmee gëm bu dëgër du ko du ko gëmantu du koy gëm ba mel ni dafa janoog loolu bu gëmee loolu itam nan la war na xam tam ay farataam fadul ay nem nga xam ne war na xam naka lay jullee xam bu julleem yàqoo naka la koy defaree loolu xam nan lay jàppoo bu jàppoo bu jàppam yàqoo na la koy defaree nga xam ne yooyu yëpp euh, moom lañuy wax euh, fiq walla moom la ñuy wax bu ñu nee islaam islam islaam mooy mu amalaat yi ak ibadaat yi euh, iman moom wax naa ko moo jàll ci kanam ihsan nag moom mooy nit ki lépp lu muy def def ko dëgg-dëgg ni ko yàlla bëggee ba am ci ngërëmam nga xam ne suñu borom loolu la bëgg ci jaam bi door ko bind daal di koy wàcc ci kaw suuf kon bu ñu jël àllaaxira li Sëñ wax ne bul jaay sa leer jëndee ko ak lëndam bul jaay sa leer jëndee ak lëndam soo ko defee bu ëllëgee di nga ko réccu waaw waaw nga xam ne nit ki nit ñi amuñu maanaam problème bi leen dal mooy dañ leen xamulu seen diine bu ko defee lu ñëw rek bu jiitoo ci xol bi rek dafay daal Euh, sax bu ko defee loolu bu saxee daal di meññ bu meññee nag bu feeñee ñëpp daal ne ca cam fekk ne moom ñàkk responsabilité bi ci ay waajurum waaye du ci moom wala bu dee ci moom itam euh, ay waajurum am nañ ci wàllu bu rëy rëy ndax da nga gis phénomène bu nekk lee ku jóg day woote te ku woote rek nit ñu topp la te ñu lay topp ñëpp ay doomu judd lañ leen di woowee ndax dañu judd nekk tudd ay Mouhamed tudd ay Moustapha tudd ay Abdoulahi tudd ay Omar tudd ay Abu Bakar waaye bu fekkee ne tur bi tur jullit la waaye li ñu fas wala seen jëf dafay uteeg loolu bu ute bu soree sore hmm. jërëjëf wax nga ko sa biir wax mu mel ni kilifa yi léegi euh, waajur yi jëlatu seen doom yi xëcc leen lu ci wàllum diine xamal leen ko. Mhm. topp nañu nasaraan bi ba fi mu ne nii mën naa ne nasaraan bi sax nangu nañu. Mhm. Euh, te duñ ko toppee am na yoo xam ne mën nañu koo mën nañu koo indil comme gàllankoor donte am na foo xam ne mu ngi ñuy jàppale. Mhm. lan ngay ñaax ñi nga xam ne duñ jël seen doom yi yenn temps yi ñu koy yóbbu euh, seen doom yi mën a jàng lu bokk ci wàllum diine. waa xam nga su fekkee ne nit ki. Euh, dafa ju judd rek jàng xamul dara ci diineem euh, mënul fexe fexe fexe fexe ba du def erreur ci diine bu ko defee seytaane mun na am bunt ci moom mooy waral li ngay gis léegi nit ki tëb tëb rek seytaane foq ko gëmuloo ko dara mu xëy woote loolu waaw mu xëy daal woote loolu bu ko defee la mu la mu woote euh, day jàpp ne mooy réalité te fekk boobu seytaane dafa dëpp mbir yi li woon li woon réalité la ko nëbb daal di wan li nga xamante ne euh, lu foos la waaw. moom foofu la ñuy duggee ndax am na lu ñuy coow fan yi ci biir réew mi sax mu mel nit ki su fekkee ne am na loo xam ne jàng nga ko mbaa nga xam ko ñoom ñu la yar ak yenn yi am na loo xam ne doo ci xel di dugg ñu ci coow ku ci mel ni kuñ naan Zeyda Zahman. Hmm. kooku ñu wax ci moom fan ndaw soos waaw ndaw si moom seytaane moo ko moo ko moo ko fëq ndax koo xam ne buy jàng alxuraan sax ci français la koy bind di ko jàngee euh, seytaane gëmuloo ko naka danga war a woote yonent nga dañ def ci révélation ba am ñoo xam ne dañ ko ci topp mu daa gëm na moom fi ne yonent la gëm na moom fi ne dañ ko war a topp gëm na moo yor alxuraan gëm ne Euh, ci lislaam la nekk fekk ne moom nekkul ci lislaam la mu jàpp sax ne mooy alxuraan du alxuraan seytaane moo ko jàngal waaye la mu xam du alxuraan kaaw Zeyda Zaman moom loolu laa ci loolu laa ciy wax. loolu nga ciy wax. Hmm. moom du dee comme ça li koy wax ba mu wax loo yi mu wax nii du dee. Euh, comme ni nga ko waxee seytaane wala lan moo ko war a mën a dugg ba duñ naan yonent moom yonent benn bi rek la fi nekkoon. Mm. lan moo ko war a kii ba mu wax yi wax yi mu wax nii. waaye li ko poussé mooy xëy na jëkk ma si yàgg rek gis ne moom jot na mu pratiquer ndax soo xoolee ay forom dañuy gis ne kii ay ay tubaab la doon àndal xëy na xamul dara buy wax sax dafay mel ni français la gën a dégg ci olof wala dafay mel ni sax déggu olof léegi nag dem na ba benn âge alxuraan di ko jàng ci français di xool révélation yi di euh, gëstu léegi nag xam nga seytaane moom nit ki heure bu góor góorgóorloo pour bëgg am dara ci diine rek moom day fexe rek di la dog di la dogale di la dogaale pour yàqal la léegi nag seytaane daal di ñëw daal di associé ak moom te xamu sànne fi ne nii seytaane liggéeyal moom jàpp na ne fi ne nii moom képp ko ne woon doo yonent da da day mel day jàpp ne moom yonent la loolu gëm ci boppam. te fekk seytaane moo ko nax moo tax seytaane lu am doole loo xam ne dafa am sañ-sañ bu baax a baax a baax a baax ci ki nga xamante ne euh, ngëmam dëgërul waaw. am na solo jërëjëf sëñ Babacar dañuy dugg ci suñuy ponk question daa am fu may njëkkee mu mel ni parfois am na looy fàggandikul nit ñi lu ci mel ni cuuraay cuuraay la ah, yaa ngi ci ba léegi. waaw cuuraay moom euh, ñu bari xam nañu ci wàllu cuuraay ndax hmm. dangay xool cuuraay yi. bëri na ñoo xam ne am nañ jafe-jafe wéradi am nañ jafe-jafe cat am nañ jafe-jafe euh, njabar am nañ jafe-jafe euh, liggéey bu nekk seen yaram cuuraay bi dañ ko liggéey liggéey ko ak tur yàlla nga xam ne ñi am jafe-jafe yooyu yëpp suñ leen ko joxee ñu jëfandikoo ko euh, bu ñu ko diir jëfandikoo diir bu ñu leen wax ñu gis liñ doon jàmbat daal di dañ ndax euh, ñu bari xam nañ ne cuuraay lu am solo la ci euh, mbiru mistik wala mbiru faj waaw cuuraay lu ci amam solo la ba a ko ba sëriñ si loolu moo tax ñu fonk ñu fonk cuuraay ndax cuuraay bari na noo koy liggéey mu mën a def lu bëree bari ci yu mel noonu. jërëjëf dañuy jàll ci beneen ponk ba léegi desal ci euh, ñu na am ñu bëri di koy wax niirlu ñi di naan seet. Hmm. ñu ñëw ci seet. waaw seet moom comme ñun bu dee wet gi ñu si féetee wetu cash flow loo xam ne suñu borom moo ñu ko moo moo ñu ko muril. Hmm. nga xam ne fi mu ne nii nit ki bu ñu jàkkaarloog moom rek euh, dana bëri loo xam ne daan ko xam ci moom te fekk loolu euh, bëri na tur yoo xam ne bu fekkee nit ki moo koy liggéey euh, lu mel ni bëri na yoon sax bëri na ay yoon daal yoo xam ne bu ko nit ki dee def rek am tarbiya bu baax day dem ba day am fatxu day ubbeeku bu baax a baax ci xam-xam yooyu làq mm-hmm. yooyu. Mm-hmm. yow ban genre ñun ki nga xam ne ñëw si ñun. Mm-hmm. bu ñu joxee turam turu ndeyam ak atam. dana bëri loo xam ne euh, li ko gàllankoor danga ko mën a wax euh, li koy yàqal tam fi mu jëm fi mu toll ak li mu bëgg yëpp dañ ko mën a. daal di leeral ba nga xam ne dina xam fu mu teg tànkam. Mm-hmm. am na solo ñëw ci kaw impuissance sexuelle ñu bëri di naan feebar bu doy waar la ci nit ki su la dalee moom yu bëri doo ko mën a tee kii ndax mën naa ne ku mu dal sax yenn kër yeeg yooyu noonu du xaw a tee neex coow la dafay xaw a bëri il faut faju ko ba sonn. waaw divorce yi dama naan li gën a bëri si jigéen ñi du ñàkk depense ndax dañuy gis koo xam ne jëkkër da koy euh, choix da koy dëkkal fu baax bu fayee ko lu muy njëkk a def. li jabar ji bëgg leen di ko def door a sax ay waajuram sax du leen du leen jox ci xaalisam daanaka eh, lépp jigéen ñi la koy jox wala soxnaam soxnaam la koy jox te du tax mu am bànneex ci moom nga xam ne kon loolu am na am na am na lu ko wund góor sëy yu baree bëri fi ne bu yëngatoo loola ko yëngal impuissance fu bari ba jéggi dayoo góor ñu bëri mënatuñu am na ñoo xam ne balaa ñoo sëy dañuy naan doom pour nekk góor am ñoo xam ne ni impuissance sexuelle jàpp na leen ba seen awra tuuti ba nga xam ne dañuy mel ni comme liir delloo mel ni gone fekk impuissant moom am ñoo xamante ne fi bu ñu seeyee impuissant jàpp na ne ba mënatuñoo maanaam euh, seey seen soxna yi ba seen soxna yi ëmb. waaw am ñoo xamante ne impuissant jàpp na ba bu ñu seeyee liy génn seen ci ma ñoom ci maan yu tuuti lay bu bu ñuy daanu sax duñu na ñoo ngi daanu ndax amatuñu doole fekk yooyu moo koy def ñu bëri da ngay sax dañ jàpp ne rab la. bu leen door a dal dañ naan lii kat xam naa stress la bu ko defee guddi gi dañuy jéem fu mu ne fu nekkee seen xel bu xewee jóg ñu daan ni xaaral ma jéem egg suñu demee jéem jéem bu sonn daal tëddaat bu defee bu ñu xëyee daan ni xam naa temps yi liggéey bi bëri stress la au lieu ñu faj ko duñ ko faj dañuy jàpp ne stress la naan ay garabu anti stress lu nekk du den ñu toogaat toogaat ba si yàgg mu ñëw parce que euh, impuissance tub tub rek dal góor. dafay bëri ay alerte maanaam noonu ma la wax noonu noonu lay tàmbalee su jekkee ba si àgg dal ku góor ki bu jekk si àgg dem bu jekk dal ko jekk dem dal ko dal ko dal dem bu yàggee ba yàgg bu ñëwaatee mu daal ne xam naa fatiguement la mm-hmm. bu demee nag ba empire moo xam ne léegi mu ngi koy dal chaque jour mu ne rab la wala dañ koo liggéey du xalaat ne sax feebar comme feebar yi nga xamante ne dana dal nit ñi ndax nit ki parfois bëtam metti lan moo ko def dafa war am bu metti mu dem si mu faj parfois biiram métti mu faj ko tànk tànkam métti wala dara métti ndigam mu faj mais fu leen impuissance sexuelle commencé dal dañ koy jiñ stress wala di ko jiñ euh, euh, rab wala di ko jiñ fatiguement wala di ne dañ leen takk xala fekk ne loolu bu ñu ko defee rek euh, seen bopp mën nañoo bañ a jóg faju bu ko defee nag soxna si moom du mën a xaar mm-hmm. nga maanaam du mën a xaar nga nekk fi naan ay rab laak nangam ak nangam mm-hmm. ndax jigéen bu tollee ci war a sëy euh, te sëyul sëy bi nga xamante ne nii set na xolam da ngay gis mën naa dem ba mbëggeel gi mu bëgg ku góor ki daal di wàññeeku bu ko mbëggeel gi wàññeekoo nag mooy a coow bëri waaw bu wàccee su ko maram tegee loxo mu ne ko damaa sonn wala balaa ñëw këram xaaju guddi wala bu ñëwee daal di ñëw rek commencé nalaw war nga maanaam bu ko defee day indi coow nag. ndax jigéen bi nga xamante ne xëy nga dem liggéeyi mu toggal la reer bu baax nga ñëw mu topp tool nga reer ba suur gudd lépp lu muy def mu nga naan su paree dina ma bëggal nga pare daane ko dama sonn wala mënuma ko bu ko defee nag day daal indi indi indi indi jafe-jafe bu ko defee maram day jàpp ne yow da génn di fooyu fekk ne dangaa ngaa mënatul fekk ne loolu maanaam ñàkk mën la ndax ndaw Euh, bu njëkk daana na ànd ak jigéen maanaam ba ndaw si boppam day mujj dootul bëgg fanaan ci lal bi mm-hmm. waaw bu demee dem ba nga xam ne góor day bëgg a egg si jamono du ko mën nga xam ne kon loolu feebar la waaw. jërëjëf feebar la dañuy dugg ci beneen ponk du dee feebar la nan la mën a maanaam nit koo xam ne ku bëgg a am doom mbaa koo xam ne problème am doom. daf koo hmm. dafa bëri yoo xam ne dafay tey am doom nit. hémorroïde bu yàgg day yàq màndiw ndoxu day yàq mànniw varicocèle dafay yàq mànniw jabet daf koy yàq infection noonu te infection day dal góor day dal jigéen bu dee ci jigéen la li ñuy wax fibrome dafay tax du euh, euh, am doom li ñuy wax kyste mën na ko kyste mën na tax du am doom li ñuy wax Euh, kii trompe yu bouché moom tam la même chose bu defee yooyu yëpp day waral ay ay ay mbir la ñu waral couple di sëy duñu mën a am doom mais lu gën a bëri képp koo xam dafa ñëw ci man même bu dee ku jigéen moo feebar dama naan la yor doo faju foofu sa jëkkër dina ñëw faju ndax day waral fekkee ku jigéen mooy faju ku góoru faju doo gaaw am résultat ci li ngay faj te góor ñi dañuy toog rek di xaar soxna si faju ñoom ñu daan ne comme am na sax ñoo xam ne dañ daan amoon naa ay doom wala am naa ñaar doom kon kon du ci man fekk dafay dafa lay dafay dab góor dafay walax njaanam yàq wala am ay malformation wala di gaaw a dee waaw. jërëjëf dañuy dugg ci rab rab nag bëggoon naa xam lu muy def ci nit maanaam lan lay def ci nit ak yan gàllankoor la mën yóbbee nit ki rab. waaw rab moom dina waral nit ki bu fekkee mu ngi liggéey du mën a denc dara. su fekkee amagul soxna di labat relation bu mu am mu yàqu su fekkee euh, dafa am beneen dafay tabax walla dafay def dara lu mu dugg bu tàmbalee rek taxaw dana waral tam nit ki rab bi jàpp ko ba nga xam ne day gaaw a fàtte mën naa teg dara ci kanam jekku si àgg rek wër ko wër bu mettee méttee méttee day nekk ci kanamam fekk rab bee koy jaxase ba nga xam da koy gëlëmal ba la muy xool du ko gis rab dana waral euh, ci jigéen heure bu ëmbee mu yàqu dana waral ci góor tam mu dem ba tële euh, yooyu yëpp rab dina ko def rab dana dana gental kër rab dana jàpp ni sax ba mu paralysé rab dana waral nit ki dem ba leel ba nga xam ne karaw gi du amati bopp bi du amati karaw dana jaxase nit ki ba guddi gi du mën a nalaw ba bët set du gëmu bët dana tax euh, jigéen sëy bu mu sëy rek divorce sëy bu mu sëy divorcé muy jigéen walla góor dana waral tam euh, maanaam dem ba nga xam ne daanaka dootoo nekk nit dof nga gën a jege sax ci nit bu dee xale la mu teel ko am dana war a sax muy daw jàng wala bu duggee école am wala bu jubee école am daa mel dañ ko naan dëppal dëppal tànk dëppal du am jàmm wala bu duggee du xam dara si li muy jàng bopp bi day jaxasoo day su xam ne xale moom day mën a jàng jekk sàng rek subitement rek mel ni comme xamatul dara fekk ne rab yi ñoo ko maanaam rab moo ko dugg jaxase ko waaw bu dee góoroo tam mën na koy xiir muy masturbé wu du masturbé wu du masturbé fu mu demee jàpp bëgg a julli bu demee dus boobu ne lay jàpp wala day tuur ndox rek Euh, maanaam mu xiir ko ci bu ko defee day fooy maanaam te fu mu nekkee jamono bi muy gën a jaamu yàlla koy gën a sonal day dama dem ba du bëggati mu jaamu yàlla fekk rab moo koy def. waaw xeet yi yëpp nga fi lim bëri kon nan lañ mën a def ak ñaan moo gën a gaaw pour ñu mën a mucc ci lii nga wax lépp nii. waa xam nga euh, rab damay wax ne dafa mel ni comme chien méchant nit ki bu fekkee dafa am xaj xaj bi nekk ak moom di ko nekk chien maanaam di ko song di song ay doomam ku ñëw ci kër gi mu songal ba kenn dootu bëgg a dugg sa kër kenn dootu la bëgg seet si kenn dootu bëgg a amal yow affaire boobaa dafay dafay jar nga jël xaaj bi yóbbu ko ci dresseur ne ko dressel ma ko ba mu xam li mu war a mboo ak li mu war a bu dee euh, rab tam da dem ci sëriñ boo xam ne yàlla may na ko ci wàllu rab mu dimbale dindi dindi maanaam fexe ba yàq yi muy def ci mu deñ fexe ba taqala rek ba am dootu la yàqal tant que loolu amul rek. solution du si mën a am. jërëjëf